fàttali ko ciy ñaan di ko ñaan aussi suñu leeram nga xam ne liggéey na ci liggéey bu ba mu tegee xeer wa ba suñu borom moomee mës ci mës ci taxaw toujours la lam ci war def mi ngi ko ci def ànd ko ak mbokki taalibe yi ak ay rakkam ak ay njabootam mu doon liggéey boo xamante ni lépp luñ ci war a def na ko ci ba ci ak mujjam dafa génne li nga xamante ne bii ne moom la war a liggéey euh, liggéey bi bàyyi ko fi soo ko dem bi mu demee tamit euh, kilifa gi nga xamante ne bii ne moom la moom la suñu def teg teg loxoom ci dëkk bi tey muy sëñ Moxtaar ñu koy ñaanal suñu borom liggéey bi yàgg ci loxoom aussi taxaw na ci moom tam taxawaay bu am solo ba jaarle ko fa mu ko war a jaarle ba tey jii nii ñu ubbi ko ñu ñaan suñu borom mu yàgg koo jullee mais liggéey la boo xamante bi ne taalibe yëpp yëpp jàpp nañ ci rawatina nag taalibe nga xamante ne bi ne ñu aju ci ñi nga xamante ne bi ñooy waa daayira daayiratul moshinin wala moshinaati masha Allah am nañ ci liggéey bu am solo ba bu ngeen gisee taxawaay ubbi ubbi tamit nii sax programme yeeg li ci aju lépp sëñ bi ñoom la ko teg seen loxo macha allah ñu liggéey ci liggéey bi liggéey bu bu mucc ayib bu am solo di ci sant aussi suñu jëwriñ suñ Maxal ak euh, suñ Cheikh si la nga xam ne ñooy jëruñu liggéey bi suñ njiitul sëñ Abdou Lahat ak sëñ Mame Thierno ñi nga xam ñoom ñooy président d'honneur euh, daayira bi nga xam ne liggéeyu jumaa jeeg magal geeg yëpp ñooñ la ko ñoom la ko sëñ bi teg seen loxo muy liggéey boo xam liggéey bu am solo daal jëriñ ñi taxaw ko liggéey comme ni ko sëñ bëgg woon ñu ñaan sëñ sëñ mu julli ko ay at at macha allah euh, li nga xam loolu daal moo doon li nga xam ne ëpp ci tënk rek ci liggéey bi fi mu jaar ba agsi fii nga xam ne xëy na xaw naa yàgg mais liggéey jumaa moo doon loo xam ne mënul gaaw aussi ku xool tamit euh, liggéey bi ni mu mel ak jumaa ji ni mu ni mu demee nii danga xam ne kilifa gi def na ci euh, lim bu takku ci xaalis te loolu lépp kenn mësul taxaw dégg ñuy wax ne jumaa yi ko sax la ñuy laajal te ku xool jumaa ji xam ne ay millions moo dem su fekkee sax mësul milliards ay millions yu bari moo dem mais mosoo dégg ci rajo wala nga ñu taxaw ne jumaa yi laajal wala nga dox si mbedd ba gis ñu jox la benn benn euh, tige wala benn euh, maanaam dara daal luy mandargaan ne jumaay Kossy moom la ñuy laaj la addiya kon loolu nga xam ne taxawaay la bu am solo boo xam ne kilifa gi nga xamante ne bii ne moom la yàlla tegoon loxo bi ci liggéeyam te def ci dogal ci moom lu ko neex moom moo ko jiwoon ci taalibe yi li leen xamaloon mooy lépp lu ngeen bëgg rek defal leen ko seen bopp maanaam euh, kattan googu noonu ci la taalibe yi ba jumaa ji mosuñu koo laajal mosuñu ko sàkkul ndimbal ci benn télé ñu koy dox ci benn ministère wala nangam nangam comme comme ni nga ko gisee ci Sénégal di as fenn mosuñu ko def te teewul sëñ bi def na comme ni ko bëgge ba tey ñu ubbi ko nii macha allah ñuy ñaan suñu borom mu jullee ko ay ati ati at ñu sant aussi taalibe yëpp daal macha allah liggéey bi am solo ndax taalibe yi def nañ ci liñ ci waroon def ndax liggéey jumaa ju mel nii te taxawoo di laaj kenn xaalis loolu nekkul ne fépp ñoo ko man nekkul ne aussi taalibe yëpp ñoo ko man kon tamit taalibe yi ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax ci turu sëriñ bi